asalaamaaleykum wa rahmatullah téléspectateur Equivox TV yi maa ngi leen nuyu di leen siyaar di leen ñaanal jàmm di ko saaku ci yéen di la wax ne nag tey ñu ngi ci alterné tombé ak le 9 août 2021 li ñuy def mooy bàyyi leen ngeen dem seetaan yëgli kay ñu dikkaat ak yéen si plateau bi asalaamaaleykum wa lundi 9 août 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay yi sunu lamb la ñuy xëy doore ko mel ni ki nag tey fa ñuy xëy ubbee mooy inna lillahi wa inna ilayhi rajihoon maanaam ñun ñëpp ci buur bi yàlla la ñu jóge te fa la ñuy dellu ka nga xam ne nag ci nun la bokkoon jóge woon ci boromam te dellu fa moom moo di Mbaye Gueye premier tigre de Fass mbay Gueye jàmbaar ja mbay Gueye ka nga xam ne nii mbarum lamb ma nga xam ne fitam njomam ngarmem foo ko takkoon weesu na ko moom la ñu yëglikaay bi xëy tey won ci photo mu njëkk mu téeb journalam de journal am mel ni ki nag wuyu ju na boromam samedi ji nu génn ba nu yóbbu ko ca Touba denc ko fa yëglikaay bi di nu xamal ne day boo bëggee dégg-dëgg daal maanaam moom mbay Guèye amoon na lu toll ci juróom-ñaar fukki at ak juróom maanaam soixante-quinze ans waaye Touba mbakke daal moom mooy këru dëggam nga nga xam ne ni fa lañ ko mujje denc mel ni kon daal loolu yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dina ko wax mel ni ki nag yëglikaay ba ba ma paree ca la ñëw na andil ñu la nga xam ne nii moo doon ay œuvre maanaam daal visital nu Mbaye kan la doonoon ak lamitam nu mu meloon am ñoo xam ne wax nañ ca maanaam yoxe ca seen kàddu ka ca njëkk mooy ki jiite république bi muy président Macky Sall Macky daal nee na génn ak àddina ak mbay gi la ko peneen la nekk na mbir moo xam ne daal mu ko métte métte la moo xam ne daal ah jàpp na ko ndax daa jàpp ne daal kooku nekk na koo xam ne nii day maanaam royukaay la woon boo xam ne bu leer la ca la nga xam ne da ca daan yëngutu muy wàllum làmb ja ba tey bu nu continuer mu mel ne ki wax jooja itam am na ñoo xam ne continuer nañ di ko dëggal ka nga xam ne moom moo jiite làmb ji di bira seen ne na mbay gay daal nekkoon na koo xam ne kuraasu gaynde maanaam jomi gaynde dëgg la doon demee xalaatu kon ci ragal luy nekk ci moom wala leneen maanaam daal fit wa foo ko takkoon weesu na ko ak jom ja moo tax du jaan jekk ko daal di tontu bira seen ne ko li am ba des sax xale yi tey yi nekk ci lamb daal nee na war nañoo jéem a roy jikkooy mbay gi ndax jikko ja jikko la woon joo xam ne jul wóor a wóor la te itam jikkooy garmi la woon jikkooy borom jom la Moussa Ñing ma nga xam ne yàgg naa ànd ak moom moom itam xëy ne tey am lu ko naqari lool waaye tam di fàttali loo xam ne ab sëriñ moo leen ko waxoon wala moo ko waxoon mbay gi xamoon ne daal popularité moom di nga ko am ba mu wóor a wóor a wóor Moussa Gningue xëy na tey dikki ci lu mel ni ki noonu Gaston Mbengue tamit di promoteur bu lamb ñëw na wax ci ne na maanaam daal bu ñëpp bëggee lamb jàpp na ne grâce à Mbaye la ndax nekkoon na koo xam ne ni na ma meloon ci mbër mel ko ci ci lamb taxoon na ñëpp ñi nga xam ne ni daal dañ daan suivre lamb bëggoon Mbaye Guèye ki nga xam ne moo di Gaston nee na te loolu ki ko waral moom moo di Mbaye moo taxoon ñëpp bëgg lamb Bécaye Mbaye mi nga xam ne tamit ab communicateur traditionnel la ñëw na tey di wax ne na guy gu mag moo daanu maanaam grand baobab ga maanaam daal moom moo tombe dal di daanu parce que nee nag nekk na koo xam ne nii nee na sax ak daanoom tax na père la mu gis mooy làmb ci boppam sax moom moo daanu wala boog moo ñàkk loo xam ne mënatu koo am ba ilaa yow mi diini Mouhamed Ali tamit ancien gloire nekkoon mbërum làmb nee nit koo xam ne nii ku dëggoo ni Mbaye Guèye nee na ñemee la muy wax te du ca ragal dara nee na pour nga gisati ko nee na loolu dana jafe lool Max Mbargane tamit di manaseeru Siteu moom tamit xëy na tey di wax nee na maanaam làmb Mbaye da koo jox làmb ba ma muy génn àddina ne na mbay gi jógul ci liggéeyal làmb moo tax ña nga xam ne ñoom la bokkaloon kuréel muy ña nga xam ne ni moom mooy waa Ariels ke leen jiite di Malick ñi ngi daal moom daal ne na sunu association ba daal perte na koo xam ne ni daal monument dëgg dëgg dëgg la nu ñàkk yëglikaay bi di sunu làmb nag xëy na tey toppal ñu mbay gi ci loo xam ne ni def na ko ak loo xam ne ni jaar na ca mel ni kon daal soo bëggee dëgg dëgg daal lu méttee métti arrivé la nga xam ne nii ñoom ñoo di waa làmb ji yëglikaay ba moo xëy tey ñëw dinu ko wax mel ni ki mun delloo ca touché ba tey ka nga xam ne moo di Gris Bordeaux tamit maanaam mbir ma daal ba mu ko yëgee noppi woon ko jafe na lool ndax ne na ka mu ñàkk mënatu koo am koo xam ne confidence am la koo xam ne jaraloon na ko maanaam lu ne Gris ne na Mbaye Guèye la ma ko jaraloon ne na man kese maa ko ko jaraloon moo tax Gris Bordeaux daal mbir ma ba mu ko yëgee metti woon na ko daal ba jooy na ko jooy yoo xam ne noppi woon ko jafe woon na lool lool lool ba mu xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu ba tey dañuy continuer ci loo xam ne ba tey ku génn àddina muy ki nga xam ne moo di xaadim jaxate di nekk ab euh, ki nga xam ne nii ku yëngut ci wàllum làmb la di ab amateur bokk tamit fa nga xam ne moo di ca Bawol production waaye bokk fa nga xam ne tamit moo di groupe baax ak jeune amateur ba ca Njaay production moom xaadim jaxate nag moom moo ñakk way juróom bu jigéen fa nga xam ne nii moom moo doon ca Touba Mbàkke soxna sa nag ñu ngi ko doon wax soxna Binta jaxate yëglikaay ba moo xëy ba tey bu nu continuer sunu lamb mu ngi nu xëy tey di nu xamal Adama Diatta ma nga xam ne nag moom la mu ñàkk mooy médaille de bronze ba nga xam ne ni daal moom daal na tey wan ko Adama itam mu ngi xamal ne daal moom daal boo bëggee dégg dëgg daal nee na maanaam daal rus daal la def parce que nag nee na la mu bëggoon muy euh, objectif am daal mujj ko atteindre nee na mbir mooma metti na ko lool lool lool ña nga xam ne nag moom seen objectif atteindre nañ ko ba yëglikaay ba xëy ñëw dinu ko wax ñoom ñoo di waa écrit kaay baax ba nga xam ne moo nekk ca tëngéej ku ne xam na ne sunu làmb door ba nga xam ne sunu làmb da koy joxe at yii yépp ren tamit daa mel ni ñoom ñoo ca teg loxo muy waa kaay ba yëgli kaay ba wan ñu leen ci aw photo mu mel ni ki nag soo bëggee dégg dëgg daal sunu làmb mu ngi nuy tegleel mbir na mu demee premier écrit ba nga xam ne moo raw def am 42 points moom mooy kaay baax quinze combats lala boog quinze victoire la ñu jot a bëree am trois défaites yëglekaay boo ko totalisé mu ñëw ci dix-huit combats ka ca topp jël deuxième mooy école de lutte Cheikh Mbaba moom itam trente-six points la am am na lu toll ci treize victoire six défaites ak benn match nul bëre vingt combat troisième podium troisième ka ca nekk nekk ca podium ba moom moo di écrit ba nga xam ne moo di jëf soog nekk ak 31 points yoo xam ne am na ko am onze victoire trois défaites benn match nul boo totalisé combat ya mu toll ci quinze combat yëglikaay ba moo xëy jëw toppal ñu lu mel ne ki noonu mel ne ki nag lu bees loo xam ne am na ca maanaam daal maanaam bu njëkk ñu koy joxe suñu waa CNG ñëw teew ca événement ba mu mel ne ki Maysa Ndiaye may rewàlli lam bi dóor ja mu nga foon démb tamit ñëw taxaw yeewu leen wala boog samedi jiinu génn Ahmed Konaté directeur technique ba tamit wax na ne li am bares daal ne mbir mi yépp daal li ko indi lenn kese la ne na liggéey kese ne na secret amu fi liggéey daal moo ci am waa sunu làmb tamit wax na nu moo xam Mamadou Ibra nga xam ne moo jiite kër ga itam wax na góor gi siis mooy président kaay baax tamit wax na nee na tamit li ñu bëgg moom quatrième audition ba daal ñu gañe ko loolu daal moom la xëy tey di ko wax mel ni ki nag yëglikaay bi ñëw na ci xëtam mu njukk ci xëtam wu mujj wan ñu fa ay photo yoo xam ne daal yu jëm ca mbir mooma la maanaam la nga xam ne moom la sunu làmb def muy image yoo xam ne yu rafet a rafet rafet la bu ñu continuer ba tey ci yëglikaay yi nu dem les arènes leneen loo xam ne moom lañ ubbee woon muy génn àddina ak mbay géey yëglikaay ba tamit dikkaat na dinoo xamal ne daal ka nga xam ne moo di masib seen day jooy na mbay géey les arènes tamit ñëw na ci mbiri mbay géey ak na nga xam ne noonu la génne waat àddina mel ni que de tey maanaam daal yëglikaay bi ne na vrai tigre segg ga dëgg dëgg dëgg dëgg ne ji na boroomam yëglikaay bi moo xëy tey dina ko wax dina xamal ne président Macky Sall tamit rendre na ko la xam ne nii moom moo di hommage ka nga xam ne nii moom moo di Ibrahima mbay tamit ñëw na ci itam digganteem ak mbay géey euh, ak loo xam ne daal jàpp na ne waxante nañ ko wala nu jaar fa mu mel ni ki keneen koo xam ne tamit ñëw na muy Amadou Kati ma nga xam ne moom moo yore écrit Fass Ndakaaru léegi daal ne na li des daal maanaam daal ne na ah loo ci mën a dégg daal pour ne pas décevoir moom daal mu ngay wax maanaam bañ a daal la nga xam ne nii moom la fi bàyyi jéem a daal def la tout ba topp ci ay tànkam aw fa mu awoon day ma def lu raw la nga xam ne nii moom la defoon wala teg xale ca yoon ba lam fi bàyyi bañ a naax saay Gris moom mel na daal mu ngay wax ci yëgle yéenekaay ba nee na la mu perte daal mënatu koo am ndax nag nit koo xam ne la perte ci moom day nee na boo bëggee dégg dëgg daal nee na kama perte muy mbéy gi mënatuma koo am ci àddina Gris Bordeaux moo xëy tey waxe nu mel ni ki noonu ci les arènes Manga 2 moom di président ba nga xam ne moom moo jiite les anciens gloires tamit ñëw na ca Mbaye Gueye di laajte ndax waa Fass est-ce que amati ku mel ni Mbaye Gueye loolu laaju Manga 2 la laaj boo xam ne bu jara samp la mel ni ki tam les arènes moom it ñëw na ci mbir mooma bu baax a baax a baax a baax yëglikaay ba daal mu nga xëy tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu soo bëggee dégg-dégg tamit bu nu continuer beneen xale boo xam ne écrit ba nga xam ne mbay gee ko sanc fa la nekk muy lagros yëglikaay ba xëy na tey toppal ñu ko lagros daal yëglikaay bi nag ñetti at ngi yoo xam ne nii yu mu teglante yoo xam ne bëreewu ko def maanaam trois défaites yu mu teglante ak ñetti année balance yëglikaay ba nag xëy na tey ñëw di nu sampal ab laaj ci carrière lagros ak fam ca jëm ak la nga xam ne nii maanaam daal moom la ca war a def keneen koo xam ne examen la doon waajal waaye examen ba moom dañ koo far différé muy ka nga xam ne nii moom moo di doomu dàngu yëglikaay ba xëy na tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu moom les arènes ba tey bu nu continuer yëglikaay ba nga xam ne nii moom moo di les arènes tamit ñëw na ci bira seen muy wax ay solution yoo xam ne daal war nañ koo mën a def maanaam ngir lambi olympique ja moom bira seen ma jiite lamba ja daal loolu la xëy dina ko wax defetu Adama Diatta tamit yëglikaay ba xëy na tey dina ko wax ñeneen ñoo xam ne nii moom moom maanaam bu doonub xëccoo dañ koo seq maanaam di jongante ka raw ba sànni karawaas ga du kenn ku dul duut saane doomi joof yor ja daal maanaam yëglekaay bi na la mu rawee Serigne Ndiaye sax fas mënu koo daw yëglekaay ba moo xëy tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu mel ni kon daal bu bëggee dégg-dégg moom duudu saane raw na Serigne Ndiaye sànni karawaas ga ndax nag yëglekaay bi ne ba ñu defee la nga xam ne nii daal moom moo di point daal duudu saane la mu am ci ay point dafa bëri ba yegg ci lool yëglekaay ba dal di ko tënk ci lu toll ci boo xoolee trois 375 points daal Doudou Sané am na ko Serigne Ndiaye numéro 2 nekk deuxième am lu toll ci 210 points troisième place ba Ngagne Sène moo fa taxaw am 200 points points ka nga xam ne nii moo jël moo di Ibou Ndiaye Obali ak la nga xam ne moo di 85 points mel ni ki loolu ca lambi simple ja la soo bëggee dégg dëgg daal kon lambi simple ja ren yëglikaay bi nga xam ne moo di les arènes la mënu xëy wax mooy doomi Diofior ja daal karawaas ga raw gaaya demu yoonam maanaam daal ren mooy numéro un ci lit simple ji moom ma nga xam ne moo di Doudou saane ma nekk écrit taay si nga ba ca ëmma seen waaye di doomi jof yor waaye fan koy tëje daal mooy yëglekaay bii di les arènes andil nañu tey mbay gi ci ay photo yoo xam ne yoo xam ne yow rafet rafet rafet mu mën la ne xulle àddinaa ngi nii du dara lu waay di def di ko wax boo yeboo rafetal ko te itam xam ne mbir mi yàgguñu fi yàgg yàgg rek dem te itam kuy dem yal na nga yóbbaale lu baax te mbay gii mii day wax dëgg yàlla loola waaye waxadi waxadi koo wax mu ne la bëggoon na way juram amoon na jom amoon na fit amoon na fulla amoon na fayda bëggoon na it la muy def te laa biiroon na te defe naa loolu jikkooy nit ku baax la kon yal na ko yàlla yërëm te xare ko aljana barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf ngeen yëglekaay yi tey loolu la ñu xëy indi nuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun rek maanaam Mbaye Gueye mi nga xam ne génn na àddina di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yaakaar naa ne ku nekk am na boog ñun lu ñuy nekk nag ay xale yaakaar naa ne am na lu ñu dégg ci moom am na itam ñu jot a dund ak moom donte ñun bi ñuy xàmme ko ji bàyyi na bëri ñax ngi dégg waaye terewul nes de nekkoon na fi di encadrer ay mbër di leen teg ci aw yoon bari na tey tey ñu tedd ci làmb grâce à Mbaye Guèye loolu nag mooy ginnaaw gu barke kon Mbaye Guèye yaakaar naa ne borom barke la yal na ko yàlla xaare aljana barke nabil Mustafa sallallahu alayhi wasallam loolu defe naa tey yëgli kay yëpp ci lañ xëy tey ñëw te defe naa mooy yoon muy le sunu làmb muy les arènes euh, moo tax nag ci yëglikaay bi nga xam ne moo di lee arènes ci xëtam mu njëkk tey waaw keete mbay gi loolu la xëy laaj moo mu mel ni dund na soixante quinze ans ñu inhumé ko ca Touba gis ngeen loolu xët wu njëkku yëglekaay bi kiyete mbay gi loolu lay xëy tey di ko laaj moom lay arènes yaa ngi dégg yemu ca ñëw na tamit ci la nga xam ne nii maanaam moom la dund ci ay at muy soixante-quinze ans muy juróom-ñaar fukki at ak wala juróom-ñaar fukki at ak juróom ba mu génnee àddina tamit tubaa Mbàkke lañ ko denc kon barke ak leer ba nekk ci tubaa yal na ko ramm laaj ba nag am na ñoo xam ne xëy nañ ci tontu gis ngeen passe bu mu ñu ubbi noonu am na ñu ciy wax Ibrahima mbay wax na ci président wala boobu président Macky Sall wax na ci Bira Sène wax na ci ah. Mohamed Ali wax na ci Bekaay mbay wax na ci mais ñoom ñëpp boo tënkee seen ay wax rek mooy maanaam liñ lay wax ci waa ji ki liñ lay wax ci génn àddina mooy nitu jom nitu fulla nitu fayda nit koo xam ne ni ku tegoon ay mbiram ci yoon la kon loolu defe naa ne jom fulla ak fayda te ñi wax ñëpp ku ci ne dalaa bégal ci làmba ndax yaakaar naa ba muy bëre ñoom Bekaay mbay ñi ñëpp dañ ko daan supporté bari na ñu ko daan supporté Mbaye Guèye loolu li ko andi woon moo doon ni mu meloon mu nekkoon mburum ndakaaru waaye itam man na sax mburum Sénégal ndax tamit yaakaar naa tey popularité am ci làmb ndax dégg naa ci net li que ni président Senghor mas na traversé cortège bi ñu téye ko ndax li li tax ñu téye ko bañ laajte dañ leen mbay géey jàlla loolu defe naa mooy sël mbër bu ko ma masam xulle cortège su président di jàll ñu téye ko ndax kan benn star bu ñuy wax Mbaye Guèye di mbërum làmb mooy traversé ndax buy traversé mbooloo ma koy topp day bari ba yegg ci lool kon defe naa fa siiw yeggoon ci popularité yeggoon na fa ci nit ñi bëggoon ko loolu nag dafa am lu ko ko mayoon kon yàlla na ko yàlla xare na ñëpp xëy nañ tey wax ci moom mel ni même bu nu demee fa nga xam ne moom moo di les arènes tamit loolu moo fa nekkaat rek ñu bare tigër ba dem na effectivement loolu moo am gi xët mu njëkku les arènes tamit wan ñu photo rafet ndeysaan macha allah vrai tigre dem na wallahi vrai tigre dem na ndax yaakaar naa ne buñ la waxee ci moom ah, gis ngeen photo bi ah sekk dëgg dëgg dëgg jàmbaar pire moo gën àddina yal na ko yàlla xare aljana suñu papa Mbaye Guèye hmm? Gris Bordeaux tamit ndeysaan am na naqar wax na dëgg parce que defe naa ne Gris mi ngeen gis noonu muy wax li mu wax dëgg la mbay Guèye nekkoon na confident nekkoon na koo xam ne défenseur am la woon loolu defe naa ne ah Euh, Gris Bordeaux loolu bokk na ci li ko taaj face ba tey wax dëgg yàlla tewolof ne na purux bu lekkee euh, maanaam euh, kii bu purux war nay gërëm ñamu daaw yaa ngi dégg xaw am na nu ko olof yi di léegi léebe daal waaye loo ci mën a dégg daal ah yàlla na ko yàlla jégal te xare ko bu nu ñëwee tamit jóge ci loolu dañuy ñëw nag ci wàllum làmb ji ak écrit kaay baax bi nga xam ne gis ngeen leen nii ñu ngoongu toog ak seen ay blouson wala seen ay loo ci mën a dégg daal seen ay mayo kaay baax ngi noonu ñu jox leen li nga xam ne nii moom moo di sunu làmb door bi ren ñoo ko gañe raw écrit yépp école di Cheikh Mbaba nekk deuxième loolu la lu lu yëgle bi wax kaay baax nag boo gisee loolu mën a am dañuy liggéey ah li seen entraîneur boobu wax ko naa moo am liggéey la école Cheikh Mbaba bi nekk deuxième tamit daaw nekkoon na ko ren nekkaat na ko ñun tamit dañuy liggéey te liggéey bi mooy li nga xam ne nii moom moo wóor loolu mooy li am école Cheikh ba moom moo nekk deuxième loo xoolee. Hmm? troisième place bi ka fa nekk moom moo di waa jëf soog a nekk ñun tamit donte écrit bu yàggul mais ñu ngi liggéey ñu ngi liggéey def ay résultat yu leer yaa ngi dégg moo tax góor gi siis ma nga xam ne nag moom mooy que président kaay baax góor gi nee na daal li ambares daal nee na euh, quatrième édition bi lañ bëgg a gagné parce que bii moo nekk troisième édition bi ah loolu la wax liggéey rek comme li seen entraîneur wax kona bu ngeen liggéey rek lépp mën a ne a gis nañ ko fa moom moo jiite làmbi dóor ji moom moo ko yore moom lañ ko dénk yaa ngi dégg loolu gis nañ ko fa Adama Diatta ngeen gis noonu muy gañ na moom nag médaille de bronze la doon wut far na ko ñàkk malheureusement la ñuy wax Adama ngi noonu ci Jeux olympiques yi ca Tokyo ah di ko ñaanal yàlla rek àddina yi no sport la ah, da ngay wut kii di wut gañe nañ la li am solo mooy représenté nga Sénégal dignement te loolu rek lañ bëggoon Adama Diatta kon defe naa loolu lañ bëggoon ci moom xulee defal nañu ko kon moom dañ ko naan jaajëf rek Adama Diatta les arènes tamit buñ fa demaatee dañ fa fekkaat Mbaye Guèye rek ak 75 ans yi nga xam ne dund na ko yaa ngi dégg yàlla na ko yàlla rek waxoon nañ ci léegi mais fa ñuy duggaat rek mooy ci biir écurie Fass boobu ak xale boo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci moom ñetti at yu mu def année blanche teglante ñetti défaite muy Lac Rose gis ngeen ko noonu yëglikaay bi wan ñu ko ñett trois maanaam trois défaites d'affilée trois cent année blanche pour Lac Rose a yaakaar naa nag amoon na am na combat mook ama neex incha allahu rabbi ñu xool ndax bu dikkee année blanche yooyu mu def ak defet yooyu mu teglante ndax da koy effacé wala déet loolu dañu yoon yónni yàgg ki nga xam ne tamit examen la waroon def muy doomu dàng examen ba ñu far ko différé gis nga les arènes loolu ñu xëy wax différé nañ ko ndax la ko indi mooy ku ne xam na li fi jaar ndax doomu dàngu waroon na bëre yaa ngi dégg mais malheureusement mbir yi mujjul sotti ndax li fi jaar moo am diggante mag euh, ah ah doomu dàngu combat dañ ko reporté comme ni ñu reporté yeneen combat yëpp waaw mais nag olof na bu yoon jeexul waxu sul jeex waaw ba tey bu nu continuer ñëw léegi ci làmb simple ji gis ngeen duut sànne gis ngeen Serigne Ndiaye numéro 2 ah ñaar ñu defe naa ne yëglikaay bi moo xëy tey ñëw ci ñoom toppal ñu leen ci wàlli làmb simple ji mu mel ni kii yëglikaay bi ni mu ñu ko waxee làmb simple ji Doudou Sané ren moo ci roi moo ci numéro un yëglikaay bi nag moo ko wax moom les arènes ndax boo xoolee bi ñu defee classement bi daal moom Doudou Sané am na 367 points bu dee ay vote la loolu la am. Serigne Ndiaye numéro 2 nekk deuxième am 210 points ah kon gis nga lim ko rawee bari na trop trop trop kon Serigne mooy deuxième yaa ngi dégg ka nga xam ne nii moom moo jël troisième place ba moom moo di xale bi ñuy wax ngañ seen kooku gàmbi laa njëkk a fekk ca tournoi ba mu gañ a lese ba muy xale bu jar a bàyyi xel ngañ seen moomu ah, di xale boo xam ne macha allah mu ngi ñëw tey boog moom moo jël troisième place bi quatrième place ba Toubacouta moo fa ne Toubacouta tam di xale bu jar a bàyyi xel bokk si làmb di gañe cinquième place ba Ibou Ndiaye Obali lundi passé dalal nañ ko fii loolu mooy lit simple bi la ca am ren kon félicitation à Doudou Sané félicitation à Serigne Ndiaye yéen ñëpp Touba Ngañ Seen ak Obaleeg même ñi gañewul sax ñu ne félicité parce que affaire bi noonu lay doxee ah di félicité ñëpp waaw di wax que ni loolu moo fi ñëwoon tey ci yëglikaay yi di leen wax ne rek ngeen gën a liggéeyaat gën a takku affaire bi moom noonu lay demee gis ngeen tey yëglikaay bi tamit xëtam mu mujj lam ci xëy fësal gis ngeen ko nii gis ngeen Mbaye Gueye xam nga foto boobu ngeen gis noir balaa bi ku gis xam ne yàgg na gis nga ni mu tungeeme ki nga xam ne moo di Tafa Gueye ah, moo lay wan ne kon Mbaye daal jaaraama yàlla na la yàlla xare aljana barke nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam gor ngay gis nii garmi ngay gis nii jàmbaar ngay gis nii vrai leader ngay gis nii mbay Gueye ku véridique ku ñime dëgg moom ngay gis nii waaye yàlla moom comme le sëñ Cheikh Tidiane si almaktum waxoon rek maanaam ku tiim bàmmeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàmmeel boo tiimati war nga koo mën a muñ almaktuma ko waxoon yàlla yàlla yokk ay leeram kon lii metti na waaye dinañ ko muñ ñaan yàlla xare ko aljana Père Tafa Gueye tamit di ko ko jaale démb jokkoon nañ téléphone vraiment moo mu nekk moo nangu na dogal bi parce que loo wax tamit mu Mbaye Gueye mooy sama papa parce que bi muy gimmeeku ji papaam génn àddina Mbaye Gueye la xamoon yaa ngi dégg kon defe naa moom ñu ngi ko koy jaal di ko jaal waa écurie Fass yëpp mais di ko jaal Gris Bordeaux nga xam ne moom la yàlla dogal muy tëdd fi lu écurie Fass di ko jaal président Abbas Ndoye mi ne moom mooy président écurie Fass mais di ko jaal képp ku nekk si làmb di wax ne que ni dogal bi muy am yàlla dafa dogal fekkuñu fekkuñu Dakar boobu maa ngi woon Bawol ndax dama fa amoon dese euh, demoon ci loolu di balu ñëpp ak di bal ñëpp ak di leen wax ne rendez-vous bi ci kanam la incha allah rabbi Arena Hebdo tey am naa fay invité yoo xam ne ni ah. bu ngeen ko seetaanee tey di ngeen xam ne làmb kese-kese lañ fiy waxtaanee xulle di la jox dig daje di wax waa ak yaay ca kanam sunu association boobu xulle pour développer ak yaay yàlla na màgg ba liñ ci bëgg ñu am ko barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di féliciter président bi nga xam ne moo ko jiite muy Malick Diouf di ko encourager mais du ñu tamit suma maire maître Pape Sène le maire de la commune de Ndondol président comité sénégalais de droit de l'homme di ko wax ne maa ngi koy saa su di ñaan jàmmam yokk ba beneen yoon